mbokk auditeurs yi jërë ngeen jëf ci déglu bi ngeen ñuy farataal di déglu vendredi nag bu waxtu wi jotee ngeen di baaxoo di teewlu seen émission bi di SOS santé tey nag SOS santé am mbégte ak bànneex di dalal ñi nga xamante ne ñoom ñoo yëngatu ci lépp jom ci wàllu jàngoro bi di AVC bokk na ci ki nga xamante ne moom moo di docteur Ndiaga Mactar gay nekk neurologue fii ci hôpital bu Fann mën na rafetlu ci beneen wàllu wi ki nga xamante moom moo Diatta Khalil Diatta nekk chargé de communication de l'association sénégalaise de soutien aux patients et familles victimes d'accident vasculaire cérébral ngeen gën ko xam ci jàngoro bi di AVC mais nag dañuy fas yéene tàmbale waxtaan wi ci waxtu yaatu loolu ak ki nga xamante ne moom moo di suñu neurologue bi di docteur njaga Mactar Gaye Gayen la nag lu ngeen dégg mu wax ko rek da ngeen di comprendre que ne ab Gayen mooy wax docteur Ndiaga Mactar Makhtar Gueye ñu ngi lay wax dalal ak jàmm ci rajo Rewmi FM. ñoo ngi lay sant soxna Fatou Baba Fall ci invitation bi ñu ngi nuyu suñu auditeurs yëpp ak euh, bépp sénégalais. Euh, euh, sant ko gërëm ko moom docteur Gaye ci disponibilité bi ak OFT bi nga xamante ne manifesté na ko docteur Gaye dañuy farataal di dégg kàllaama bi wala jàngoro bi di AVC AVC tey nag ñu bëggoon nga xam lekk auditeurs yi lan mooy AVC. AVC boo ko euh, déggee euh, boo xoolee ay lettres la euh, yoo xamante ni mooy A. ak V ak C. Mm-hmm. A bi boo ko déggee mooy accident accident foo ko dégg euh, ñenn ñi sax mën nañ yaakaar ne xëy na feebar la boo xam ne yaa ngi koy jëlee ci euh, accident de la route waaye fii accident bi li muy euh, firndeel mooy loo xamante ni daanaka buy ñëw ci yow du tàggoo. Mm-hmm. maanaam dafay gaaw accident. Mm-hmm. cérébral foo ko déggee mooy lépp mooy mooy lépp loo bépp xeetu feebar boo xamante dafay laal yuur bi nga xamante ni moo nekk ci biir bopp bi euh, vasculaire boo ko déggee mooy euh, tuyau yooyu nga xamante ni ñooy jële deret bi ci euh, xol bi di ko yóbbu ci bopp bi mm-hmm. kon accident vasculaire cérébral benn xeetu jàngoro boo xamante ni dafay laal siddit yi nga xamante ni ñooy jëlee deret bi ci xol bi di ko yóbbu ci yuur gi mm-hmm. ñu wax ci li nga xamante moom mooy facteur de risque facteur de risque yi pour auditeurs yi ñu déglu ngir mu gën a oyof ci seen bopp mooy maanaam euh, li nga xamante ne moom moo koy joxe wala nit ki fan la koy jëlee tey docteur boo ñu doon wax yan mooy facteur de risque yi nga xamante ne moom moo soxal jàngoro bi di AVC lan moo ñu ci mën a wax docteur Gaye facteur de risque sax boo koy wax euh, maanaam du bokk bu fekkente ne xeetu AVC bii la wala bële ndaxte bëri na sax ay xeetu AVC AVC mais ñaar yi nga xamante ne moom la euh, docteur yeeg euh, maladie gën a xam ak ñaar yi nga xamante ne moo gën a law mooy bi nga xamante ni moom la ñuy wax AVC ischémique ak beneen bu ñuy wax AVC hémorragique mm-hmm. AVC ischémique foo ko dégg mooy mooy firndeel ne benn siddit buy yóbbu deret bi dafa am lumbu deret boo xamante ni moo ko fatt bu bu bu euh, siddit boobu fattoo deret bi du agsi ci cerveau bi cerveau bi côté boobu dafay daanaka dee mhm. beneen xeetu AVC bi ñuy wax accident vasculaire cérébral hémorragique boobu siddit bi dafay fett bu fettee deret bi nga xamante ni waroon na nekk ci biir eh, sidit bi dafay génn foofu nekk ci biir yuur gi mm-hmm. kon ñaari xeetu AVC la yoo xamante ni maanaam dafa am solo ci ñu bañ ko jaxase ndaxte ni ngay jëlee ni ngay fajee bii ak bële daanaka bokkul mhm. boo xoolee ñaari xeetu AVC yooyu yëpp daf ci am ay ay li ñuy wax ay cause maanaam mhm. li koy waral ba tey cause ba tey bokkul ak li ñuy wax facteur de risque mhm. ndaxte facteur de risque mooy loo xamante ni bu nekkee ci nit ki dafay yomb ci nit ki mu def AVC bokk na ci facteur de risque yooyu maanaam ngay jëm mag loolu rek facteur de risque la maanaam ngay faral di tux cigarette facteur de risque la nga nekk koo xamante ni li ngay yëngal yaram bi bëriwul nga xaw a jël pois loolu it facteur de risque la muy obésité te boo xoolee suñu dëkk yi daanaka euh, sur le plan culturel euh, obésité wala am yaram dafa nekk loo xamante ni dañ jàpp ne merci beaucoup euh, lu lu lu weesu yooyu maanaam am na ci yenn xeetu feebar yoo xamante ne bu nekkee ci yow daanaka yow na nga nekk à risque maanaam yow AVC daf lay yomb euh, mooy li ñuy wax hypertension artérielle ak li ñuy wax euh, diabète ak li ñuy wax euh, cholestérol bu ëpp ci yaram bi mm-hmm. kon facteur de risque yi bëri na mm-hmm. mën mënuñu lim lépp waaye yii ma wax nii mooy yi nga xamante ni surtout nag hypertension artérielle mooy facteur de risque bi nga xamante ni maanaam moo gën a mën a Euh, yombal nit ki mu def li ñuy wax accident vasculaire cérébral bu loolu weesoo li ñuy wax cause cause mooy loo xamante ni mën nañ wax ne que feebar bii moo waral AVC bi mm-hmm. mooy ñi nga xamante ne bu fekkente ne accident vasculaire cérébral ischémique la mooy siddit bi nga xamante ni day fattu xeetu feebar yi ko mën a joxe mën na nekk feebaru xol yi kon képp koo xam ne am nga feebaru xol bu dee ci euh, xale yi xaw a féete feebar boobu ñuy wax waxu boo ko dul faj mën na dem ba laal xol bi xol boobu bu feebaree mën na dem ba deret bi nga xamante ni dafa a jóge ci xol bi di dem ci euh, yuur gi maanaam deret boobu dafay way te loolu mën na joxe AVC booy jëm mag it mm-hmm. am na ci yenn xeetu euh, feebaru xol yoo xamante ni dafay yombalal euh, xol bi di togg ay lumbu deret di ko sànni ci bopp bi mm-hmm. feebaru xol ci am na tamit ay feebaru siddit maanaam daf ci am ñoo xamante ni bu ñuy jëm mag euh, bu ñu amee diabète amee cholestérol euh, di tux Euh, obèse euh, maanaam seen seen siddeet yi yi nekk ci loos bi day am xeetu graisse boo xamante ne dafay ñëw lalu foofu mm. bu fa laloo siddeet bi dafay dafay wàññi maanaam fi nga xamante ne fa la deret bi war a jaar loolu it mën na joxe li ñuy wax accident vasculaire cérébral mm-hmm. waaye tamit feebaru deret yi mën na joxe accident vasculaire cérébral mm-hmm. boo xoolee ci xale yi ci ndaw yi nga xamante dañoo amee li ñuy waxee drépanocytose ñoom it euh, Euh, ils sont exposés te euh, AVC yomb na leen mhm. kon ci gàttal bépp feebaru xol ak bépp feebaru siddit ak bépp feebaru deret mën na joxe AVC ischémique mhm. boo jëlee hémorragique facteur de risque bi nga xamante ni moo gën a moo gën a moo gën a fréquent euh, fréquent mooy hypertension artérielle waaye euh, AVC bi nga xamante ni c'est lié à l'hypertension artérielle loolu le plus souvent mag ñi lay xaw a dal mm-hmm. mais képp koo xamante ni am nga AVC hémorragique te amuloo tension xamal ne am amee nga feebar boo xamante ni war na mën a joxe accident bu AVC hémorragique uh-huh. yenn saa yi dañ naan rek képp ku def AVC ñu jël tension mu yéeg ñu ne tension bi la uh-huh. te AVC yëpp tous les AVC ne sont pas forcément liés à hypertension artérielle uh-huh. ci xale ci ñi nga xam dañoo xaw a féete ndaw te ñu amee AVC hémorragique bu ñu amee li ñuy wax malformation vasculaire daf ci am ñoo xamante dañuy judduwaale maanaam ay ay ay ay xeetu feebar yoo xamante ni dafay laal siddit bi te daanaka malformation boobu ngay judduwaale amul benn màndarga donc yow mën nga nekk koo xamante ni amuloo jabet amuloo tension toxuloo yaa ngi def sport nga jékki-jékki rek def AVC loolu mooy tax loolu mooy waral yenn saa yi nit ki def AVC ñëpp naan ah kii kat de pourtant amul tension amul jabet amul parce que parce que am na ci xeetu feebar yoo xamante ni mën nga ko judduwaale mhm. te daanaka doo ko xam mhm. kon ci tënk yooyu mooy les facteur de risque waaye tamit les causes euh, d'AVC ischémique et hémorragique mhm. Euh, docteur Guèye dañuy des euh, ci wàllu woowu wax nga ko am na euh, façon AVC yu yu bëri ay type yu bëri mais mu mel ni am na ñaar yoo xamante ne xam naa moom moo gën a bëri fii ci Sénégal boo ñu doon wax ci ñaari AVC yooyu yow mi nga xamante ne neurologue nga xam naa ne dangay duggu di xool patient yi entre autres tey boo ñu doon waxal ci ñaari type yu AVC yi ban moo fi gën a am doole fii ci Sénégal. <laughs> fii ci Sénégal ak ci ci àdduna mm-hmm. AVC bi nga xamante ni dafay fatt séddité moo gën a bëri mm-hmm. waaye li ñu seetlu mooy bu njëkk ba mag ñi la daan faral di gëna daane la waaye léegi seetlu nañ ne da gis euh, jeune bu am trente cinq ans am quarante ans quarante cinq ans di ame ame xeetu AVC boobu waaye it même bu fekkente ne AVC bi nga xamante ne siti bi day fatt moo ëpp waaye tam bi nga xamante dafay nàcce bëri na lool surtout si sa mbokk jigéen yi nga xamante ne daanaka euh, du ñuy faral di yëngatu dañuy bëgg di am yaram dañuy bëgg ba pare di di di di xeesal ndaxte diw boobu ngay diw pour xeesal daanaka yemul ci sa yaram bi uh-huh. waaye day dugg ba ci biir deret bi te loolu yëpp mën na yéegal tension bi yombal li ñuy wax accident vasculaire cérébral hémorragique uh-huh. euh, docteur Gaye ci sa euh, biir wax yaa ngi wax jàngoro AVC ak yenn jàngoro yi nga xamante ne xam naa moom mooy les maladies du cœur wax nga ko fi tey jii rek ñu bëggoon xam ban lien am entre jàngoro yi di accident vasculaire cérébraux ak lii di crise cardiaque. waaw crise cardiaque boo ko boo ko boo ko boo ko déggee. Euh, boo déggee li tax ñu naan crise cardiaque mën na joxe AVC ndaxte crise cardiaque boo ci jógee maanaam xol bi ni muy ni muy sànnee deret bi dafay des mm-hmm. bu fekkente ne ni muy sànnee deret bi dafay des maanaam kon saa yu sànnee rek day am loo xamante ni du yegg ci sidditi dafay des ci xol bi mm-hmm. loolu noonu di des ci xol bi dafay way mm-hmm. doon benn kayu léegi bu fekkente ne dafa dafa way beneen contraction commotion euh, ventriculaire bu amee way boobu nekkoon ci ci euh, ci ci xol bi dafay jógee foofu yëg ci sidditu bopp bi fàtt ko joxe li ñuy wax accident vasculaire cérébral ischémique benn mhm. ñaareel bi li ëpp ci liy joxe crise cardiaque bokk na ci facteur de risque yi nga xamante ni moom laa lim léegi loolu moo tax ñu naan c'est des sont des maladies vasculaires ndaxte ni muy laalee bopp bi noonu lay laalee xol bi waaye tamit di laal sidditu tànk bi mhm. euh, tey jii dañuy dégg AVC docteur gay ñu bëggoon xam ndax am na ay symptômes yoo xamante ne doomu aadama bi dina bàyyi xel ne ki jàngoro bi la am wala dafa nekk dafa bokk ci jàngoro yu ñu duppee ay ay tueurs silencieux. waaw mooy mooy mooy daanaka ni ñu ko tuddee rek accident. Mhm. dafa nekk loo xamante ne du da bett. Mhm. du la du tàggoo waaye. Mhm. am na ci yenn xeetu euh, malade yoo xamante ne laata ñuy def AVC bi ci bés yi jiitu wala ci semaine yi jiitu wala ci weer yi jiitu. dañuy amal li ñuy wax ay tee mooy accident ischémique transitoire mooy lan maanaam. dañuy jékki-jékki duñu mën a wax wala ñu jékki-jékki seen benn euh, xaaju yaram dootuñu ko mën a euh, yëngal ak yëkkati yooyu waaye dafay def trent minutes wala waxtu rek mu disparaître ki nga xam ne loolu dal na la waroo toog rek ne amoon ah, na la xam naa tension bi la wala euh, coono bi la wala rab bi la wala yooyu kooku loolu la ñuy wax signe d'alerte yow mi am loolu da nga war a jóg sol say dàll dem gisi spécialiste bi ñuy wax neurologue c'est pas parce que waxtu après yaa ngi normal que na nga naan ah man de dara jotuma foofu nga war a jóg dem hôpital ndaxte su boobaa dañoo war a def ay gëstu pour xam loolu lan moo ko waral parce que bu ñu bu ñu xamee lan moo ko waral foofu la ñuy joxee garab boo xamante ne day tax ëllëg doo def AVC. Mm-hmm. ndaxte AVC bi ci boppam bu xasee ba ñëw daanaka des ak moom sa géeru dund. Mm-hmm. mais est-ce que si yooyu am nañ ci assez de sensibilisation ak information mm-hmm. parce que nu ko waxee nii peut-être sa tànk crampe na nga jàpp ne da am malaise wala da nga am coono dem jël benn paracétamol wala benn efferalgan mu calmer la douleur alors que le mal est beaucoup plus profond aujourd'hui docteur Gaye ndax jàpp nga ne y a assez de sensibilisation wala information ci symptômes yi nga xamante ne moom mooy jiitu laata nit ki feebar bi di ko daaneel sensibilisation moom daanaka du mës a doy mhm. waaye xalil mi toog sama wet xam naa dina ci waaw waaw dina ci dellu si ndaxte li am solo mooy docteur yeeg infirmière duñu ay docteur rek yooyu waaye ñu yëngu ci loolu ñu sol seen dàll xar seen tànk tubéy dem ci population bi pour xamal leen ko loolu nag ñu ngi siy woo waa télé yekk waa rajo yi mm-hmm. am na ci émission yoo xamante ne du ma ne amul njëriñ waaye sensibiliser population bi ñoo ëpp njëriñ mm-hmm. ba pare dañu war di wax ndaxte dafa am un problème culturel yu ci bëri tey bu dalee nit dañ naan xëy na li mu guddee génn la euh, rabbee ko mbéj wala xëy na am na ku mu doon xulool yenn yi daj ko te loolu yëpp mm-hmm. ay signe la yoo xamante ne bu la dalee li nga war a njëkk a def mooy dem hôpital mm-hmm. parce que boo demee hôpital spécialiste bi dana la gis saytu la jox la garab yi nga xamante ne mooy tax ëllëg Euh, pour nga def AVC dana xaw a jafe. Mhm. Euh, docteur sànq ci sa biir wax yaa ngi wax ne am na tranche dage boo xamante ne certainement ñoom la ñu gënoon jàppoon ne ñoom ñooy am jàngoro bi dem ba am quarante cinq cinquante ans ba ñëpp jàpp ne lii di jàngoro bi di AVC mag yi lay gën a sonal mais mu mel ni de plus en plus am na ay ndaw yoo xamante ne jàngoro bi daf leen di laal ba def leen ay séquelles tey jii da jàpp ne suñu régime alimentaire wala suñu yenn comportement yi que ne de plus en plus ndaw yi di am euh, jàngoro bi di AVC lan moo koy expliquer. waaw loolu nga wax noonu maanaam bokk na ci li ko mën a expliquer. Ah. maanaam euh, bu njëkk ba daanaka euh, oto amul woon na nga dox. Mm-hmm. bu njëkk ba daanaka ngoon si da ngay lekk lu oyof bu njëkk ba lekk bi bëriwul woon diw bëriwul woon xorom bëriwul suukar te bu njëkk ba dañ daan yëngatu lu bëri léegi nag ku ci mel ni xale avril day am trente cinq ans am salaire euh, euh, bu bu amee salaire li muy njëkk a wut mooy daanaka oto oto boo xamante ni dafa climatisé li muy njëkk def mooy bu xëyee hôpital neuf bu jotee mu dem ci brioche doore bi jënd ay croissant beurre jënd ay xeetu euh, saucisson ak yoo xamante ni bu ko lekkee da ngay xam ne kii mu ngi mu ngi am yaram di jël pois mm. nit ñi di ko gën a naan ah yow kat dafa mel ni yaa ngi noos ak yooyu mm. xëy na loolu mooy li nga xamante ni baaxul jël ci glorifié wu parce que dañoo jàpp ne ki gën a am yaram ki gën a am lex ki gën a am dox bu xaw a bu xaw a am kattan ki gën ki gën a am biir daanaka kooku moo ëppi alal mm-hmm. te daanaka kooku xëy na dafa xamul rek maanaam dafa xamul ne loolu muy def noonu daf koy daf koy lor mm-hmm. waaye tamit daf ci am yenn xeetu feebar yoo xamante ni euh, amul benn lien ak ni ngay lekkee ndax lan na nga koy judduwaale c'est génétique c'est génétique d'accord xam nga tey bu fekkente ne feebar boobu nga xamante ni c'est génétique amul nenn nu muy mandarge mandarga euh, bu dee yow daanaka dafa luñ la yenn xeetu analyser mënoo xam ne yow feebar boobu mu ngi ci yow kon kooku AVC mën na koo dal ci ndawam te xëy na du am benn facteur de risque. Mm-hmm. moo tax dafay jaar bépp ndaw boo xam ne daf nga AVC même bu fekkent ne euh, bi ngay doog a def AVC bi ñu jëlee sa tension dafa yéeg waruñu ne. tension bee ko waral. war nañ la boole ak spécialiste boo xamante ni dafay fexe ba gëstu ba xam lan moo waral AVC bi. ndaxte euh, boo xamee lan moo ko waral dana tax danga joxe garab boo xamante ni. Euh, kooku noonu nga xamante ne moo njëkk a def AVC bi du ko dalaat ndax nit ñi tamit li ñuy fàtte mooy boo defee AVC bu fekkente ne gëstuwuñu ba xam lan la. mën nga rejeter. mën nga rejeter waat te daanaka bu fekkente ne da ngaa njëkk a def AVC sa côté càmmoñ. Mm-hmm. nga dawal tuut defaat AVC sa côté ndeyjoor daanaka loolu wax dëgg métti na. Mm-hmm. waaw mm-hmm. Euh, tey jii kon docteur su la déggee am na benn comportement bi nga xamante ne war nañ ko def ginnaaw bi nga xamante ne euh, ngir mën a éviter certainement rechute AVC. waaw waaw comportement bi c'est en réalité mooy mooy nit ñi ñuy li ñuy xéwaloo mm-hmm. fexe ba ndaxte am na li ñuy wax les facteurs de risque mm-hmm. modifiable mooy loo xamante ni yow boo ci farloo mm-hmm. mën na laa bañ a dal tey kuy góorgóorlu di bañ di lekk lu niin di bañ di lekk lu bëri suukar di bañ di lekk lu bëri xorom doo tux ngay fexe di yëngatu li ma fàtte tamit mooy le stress dafa nekk loo xamante ni lu lu lu jara lu jara bàyyi xel la. le stress nekk ci société boo xamante ni boo amul yenn bu dëgër. wala la dugal ci yoo xamante ni fitna la lay jural. Mm-hmm. fitna boobu nag dañ maanaam gëstu ba gis ne que facteur de kon lu jara bàyyi xel la donc lekk bu baax. di def sport ba pare di dalal sa xel loolu bokk na ci yi nga xamante ne boo ko boo boo sàmmantewoo ak yooyu am na ci yenn cause AVC yoo xamante ne mën na tax ba yow xëy na borom bi mën na la muccal ci AVC. Euh, docteur Gaye jàngoro bu nekk ak certainement thérapie et thérapie bu muy laaj tey jii rek ñu bëgg la laaj ban traitement spécifique moom moo disponible euh, guddi yu ñu toll ngir xeex. lépp lu jëm ci wàllum AVC. comme euh, li ma wax léegi ne mën mën na laa dal te xëy na sax yaa ngi sàmmonteeg hygiène de vie. Hmm. kon it war nañoo waajal suñu bopp ci bu la dalee fan nga war a dem ak lañ la lan lañ la war a defaral. ci gàttal hmm. bu fekkente ne AVC bi nga xamante ne dafa am lumbu deret bu fatt benn euh, siddit li war mooy ci quatre heures trente yi jox la garab boo xamante ne dafay seyal lumbu deret bi quatre laa wax kon quatre heures trente minutes war nga war sa kër ak sa hôpital gis euh, médecin bi mu defal la rajo ñu commandé euh, garab bi pour ñu mën la ko defaral ci quatre heures yi foofu problème bi am foofu mooy suñu euh, suñu circuit Euh, suñu suñu filière de soins dafa dafa xaw a des filière de soins boo ko déggee mooy nit ki def AVC këram naka lay def ba accès te bu accès hôpital it naka la war a def ba am rajo naka la war a def ba gis na loog ak garab bi nga xamante ni moom lañ koy injecté naka la ñuy def ba mu disponible ndaxte garab boobu danaa ko leeral. Mhm. garab la boo xamante ni daanaka li muy jar ëpp na million. kon dafa nekk loo xamante ne it dañ ciy profité di waxaale bi eh, la war a bi nga xamante ne maanaam mooy tax siddi mooy tax euh, lumb deret bi tas seey ndaxte bu seeyee mooy tax deret bi nga xamante ni doonul woon àgg ca ca ca yóor bi mu mën a àgg te loolu yëpp c'est dans quatre heures loolu mooy pour AVC bi nga xamante ne day am lumb deret bu fàtt mooy ischémique bu dee AVC hémorragique la li ci gën mooy ñu hospitaliser la fexe ba wàccee sa tension mm-hmm. bu fekkente ne euh, li tax euh, siddi bi fàtt malformation moo ko waral su boobaa dañ lay yebal ci suñu mbokk neurochirurgien yi comme ça ñu mën laa opérer donc ci tënk loolu daal mooy traitement yi nga xamante moom la ñu war a def à la phase aiguë d'un accident vasculaire cérébral. Euh, euh, bi su ma la déggee yombul ndax euh, ki nga xamante ne AVC daaneel na ko ci quatre heures de temps wala cinq heures de temps maximum yi am na benn garab buñ ko war a injecté mais bul fàtte yi tamit suñu structure hospitalière yi boo ñëwee la laata ñu lay jël en charge ba amaana ma di la dugal urgence loolu sax boo deful ndànk dina euh, ëpp waxtu yi nga xamante ne wax nga ko fi ndax euh, prise en charge bi yomb na. prise en charge bi wax dëgg métti na lool. métti mm-hmm. na lool ndaxte ci def AVC këram daanaka balaa muy accès hôpital rek daanaka lu nekk dana ko daj. waaw te normalement dafa am mu ñuy transporter malade bi nga xamante ni dafa def AVC bu ñëwee biir hôpital it circuit bi dese na huilé Mm-hmm. maanaam yenn saay eh, malade bi dafay ñëw ñu war a ko defal eh, rajo ci saasa mu ngi xaar ki nga xamante ni mi ngi ci biir wala ñu ne ko eh, produit bi amagul wala ñu ne ko fii amul scanner faw nga dem ba hôpital Fann te loolu yëpp daanaka boo xoolee dafa yéexal prise en charge bi mm-hmm. bu demee ba àgg hôpital it ba ñu defal ko rajo il faut que produit boobu nga xamante ni moom lañ ko war a injecté mu disponible mm-hmm. te daanaka loolu amul ci hôpitaux yi waaw ci commande la waaye sax daanaka dafa amul fii ci ci ci ci suñu hôpitaux yi mhm. daanaka suñu mbokk ñi nga xamante ni ñooy nekk ci privé bi ñoom lañuy faral di woo comme ça ñu jox ñu produit bi le temps que euh, famille bi après di mën a di mën a lijjanti somme bi pour pour pour mën koo fay donc foofu li ñuy wax foofu mooy dañu war a fexe ba produit boobu nga xamante ni daanaka mooy traitement bi ñu fexe ba yombal ko ba pare fexe ba mu am ci suñu hôpitaux yi mhm. Euh, am ci suñu hôpitaux yi moom yaakaar naa du yomb ndax euh, euh, ci ni nga ko waxee prix bi c'est pas à la portée de des des sénégalais lambda wala des simples citoyens. waaw loolu loolu dëgg la waaye bu ci bu ci état bi dugalee loxoom rek daanaka mën mën naa yomb politique la rek te dafa nekk loo xamante ni avec dafa nekk loo xam feebar boo xam ne jombul kenn. Mm-hmm. kii doog a judd ba kii ba ci nekk ba ci magal mën na koo dal te xamuloo yow fan la lay dalee kon ñun war nañoo euh, laxasuwaay euh, laxasuwaat fexe ba euh, noppi comme ça ki def AVC ba ñëw ñu mën ko jox garab bi nga xamante ne moo gën ci moom te loolu faaw état bi vraiment daf ci daf ci loxoom. mu na def li nga xamante ne moom moo di subvention si yenn garab yi docteur dañuy wax rek ci li nga xamante ne moom moo di séquelles yi AVC di bàyyi ñu bëggoon xam rek ndax. c'est tout le temps évident euh, que AVC di bàyyi toujours ay séquelles ci ki nga xamante ne daaneel na ko. séquelles yi moom du toujours. Mm-hmm. bu fekkente ne teel nga ñëw hôpital bu fekkente ne teel nañ la defar rajo bu fekkente ne teel nañ la euh, jox euh, garab boobu nga xam ne mooy tas lumb deret bi mën nga cee génnee sax sans séquelles. Mm-hmm. Mm-hmm. benn ñaareel bi balaa may dugg ci séquelles ci boppam sax daanaka faaw ñu xam li li maanaam AVC naka lay manifesté woo ndaxte ni muy manifesté woo daanaka loolu lay bàyyi ci yow comme sekel da ngay jékki-jékki bëgg a wax dootoo mënati wax wala nga jékki-jékki euh, gémmiñ bi ak kanam bi demee boor wala nga jékki-jékki dootoo mënati yëkkati loxo bi wala dootoo mënati jëfandikoo tànk bi wala mu mel ni euh, mën na nga jékki-jékki rek benn bët bi gisatu dara waaw yooyu mooy sëñ yi nga xamante ne ñoo gën a ñoo gën a euh, fréquent euh, bu fekkente ne AVC dal na la li muy bàyyi comme sekkal nag daanaka mooy loolu mm-hmm. daanaka dangay dem ba dootoo mënati wax mm-hmm. wala wax bi dafay desee leer wala nga nekk koo xamante ni daanaka dangay dem ba chaise roulante sax ci ngay mën di euh, déplacé wo ndaxte mënatoo doxal sa bopp mm-hmm. ba pare AVC dafa nekk loo xamante surtout ci koo xamante ni dafa njaxlafoon mm-hmm. bu la daanelee mën na laa xaw a sonal sax sur le plan psychologique ba mën nga dem def li ñuy wax une dépression mën nga dem ba nekk koo xamante ni da ngay eh, da ngay anxieux mm-hmm. ba pare épilepsie boobu ñuy eh, feebaru crise boobu ñuy wax épilepsie daanaka am na ci ñoo xamante ni ñu ngi koy jëlee ci ginnaaw bi ñu defee AVC li ñuy wax tamit naax eh, am nga ñaari ñaari xeetu naax am naax bi nga xamante magal bee ko waral waaye am na ci yeneen naax yoo xamante yeneen feebar ñoo koy ñoo ñoo koy joxe. Mm-hmm. te yeneen feebar yooyu di ko joxe daanaka bokk na ci bi bi bi gën a bi law mooy AVC mm-hmm. maanaam kon ginnaaw ndax bi nga xamante ni magal moo ko waral ndax xeetu ndax bi ci topp daanaka AVC la mm-hmm. donc loolu mooy sekkal yi nga xamante ne ki def AVC mën na ko wëyaale ci géeru dundam. d'accord euh, euh, ñu terminer fii rek mooy ñu bëggoon laaj rek tey ndax AVC dafa nekk jàngoro boo xamante ne même su fekkente ne da ngay jël médicament yu la prescriral moom dafay continuer parce que am na ñoo xamante ne am nañ AVC ñu ngi dem consultation ñu ngi jël médicament yi mais terewul à chaque fois dafa mel ni euh, symptômes yi comme ni nga ko waxee wala am na métit yoo xamante ne daanaka du dañ li ma la bëgg laaj mooy ndax AVC dafay guérir wala jàngoro boo xamante ne da ngay continuer di jël euh, médicament éternellement waaw moom bu ñu bu xam ba xam lan mooy euh, lan mooy cause bi lan moo ko waral mm-hmm. li ñuy def mooy jox la ay garab yoo xamante ni pour faj euh, feebar boobu la am na ci feebar yoo xam ne nag bu xosee ba nekk ci yow maanaam sa giiru dund da ngay jël garab bi waaye am na ci yeneen xeetu euh, feebar yoo xamante ni maanaam ma joxe benn exemple am na ci surtout dafa dafa xaw dafa nekk lu lu xaw fréquent ci ñun ñi nga xamante ni dañoo dëkk biir Afrique benn xeetu euh, mal formation la boo xamante ni dafay nekk ci siddit bi nga xamante ni moo nekk ci loos bi di yóbbu deret bi loolu boo ko amee euh, am na ci yenn yenn réew yoo xamante ni dañuy def li ñuy wax xeetu chirurgie maanaam dañ koy dañ koy lelli euh, rek sànni ko hmm. maanaam loolu bu ñu xasee ba lelli ko sànni ko daanaka comme fer bi nekkatu fa du jar ngay jël garab sa giiru dund hmm. kon ba xam ndax dangay jël ay garab sa giiru dund am déet mi ngi ajoo euh, si si si feebar bi nga xamante ni moo waral AVC bi hmm. waaw te loolu moo tax day jar euh, boo defee AVC ba noppit ñetti weer yu ne wala juróomi benn weer juróom benn weer weer yu ne ngay dem di gisaat sa sa sa sa médecin sa neurologue comme sa muy xool ba xam ndax cause bi xam nañ ko ak tamit di saytu ba xam ndax garab yi ñu koy jëlee noonu la ba xam ndax dañ koy yokk wala ba xam ndax dañ koy wàññi. docteur service bi nga nekk nekk service neurologie ñu bëggoon rek euh, nga wax ñu tey ji boo ñu doon wax euh, li nga xamante ne moom moo di service du neurologie et comment est-ce que ça se par rapport ak lim bi par ak seen plateau médical. waaw service bi daanaka mooy service de de, de référence bu neurologie euh, fii ci euh, euh, Sénégal mais tamit ci sous-région bi kon euh, la demande. est extrêmement forte ñi ñëw fii te duñu am place ñu ëpp foofu ñi nga xamante ne ñu ngi fii ñëw ñu leen di hospitaliser loolu dem na ba tax ñu ngi jokkook suñu yenn euh, mbokk médecin yi pour ñuy jo ñuy ñuy liggéey ak moom pour rek ñi nga xamante ni ñëw nañ ba ñu xam ne lii moo leen dal ñu bindal leen ay xeetu garab ay xeetu protocole yoo xamante ni dañ leen di delloo ci structure sanitaire bi nga xamante moo gën a jege seen seen kër pour rek maanaam ñuy mën di di euh, ñu mën di leen di leen seetee foofu mm-hmm. euh, ci coté plateau bi tamit euh, boo xoolee en matière de ressources humaines du ma ne sax médecin yi waaye personnel paramédical bi néew na lool mm-hmm. néew na lool infirmières yi doyuñu aide soignante yi doyuñu te daanaka liggéey bi yëpp daanaka ci ñoom la euh, euh, ci ñoom la reposé wu mm-hmm. kon foofu it ñu ngi def plaidoyer xam ne service de neurologie dafa nekk service boo xam ne euh, malades yi ñu fi hospitalisé ce sont des malades qui sont des malades lourds qui nécessitent vraiment une prise en charge spécifique euh, permanente et vraiment daal soxla nañ un personnel euh, en quantité euh, suffisante euh, vraiment pour pour mën a dëkku euh, poids wu liggéey bi nga xamante ni wax dëgg métti na lool ndaxte xam ndaxte di nga d'accord ak man ne ki tawat di waxal boppam di daxal di doxal boppam di di di di demal boppam ci ci ci wanag wi bokk la koo xamante ni dafa tawat tëdd ci lal mënul wax mënulul boppam dara kon kooku day soxla euh, benn xeetu euh, personnel boo xamante ni saa su nekk dañuy ñëw dañuy nekk ci wetam ndaxte yu si bëri sax ñu ngi koy defloo accompagnant yi waaye c'est parce que personnel paramédical bi doyul kon foofu it ñu ngi ciy def plaidoyer vraiment pour ñu octroyer neurologie un personnel paramédical vraiment suffisant. Mm-hmm. Euh, sant ko gërëm ko moom docteur Ndiaga Mactar Gueye nekk neurologue euh, waxtu wi tënk na ko mais bàyyi na lépp ngir mën a euh, répondre ci suñu invitation bi le docteur Ndiaga Mactar Gueye sa gu mujj. Euh, di la jaajëfal bu baax Fatou Baba Fall man Fallen bi rek moo ma ci jaaxal waaye xamal ne man sa buur <laughs> waaw naa di la di la sant di leen gërëm di wax ni yii moom dañu war di ko di ko def saa su nekk mm-hmm. ndaxte ñi war wax bu ñu waxul ñi warul wax danañ wax mm-hmm. waaw kon ñu leen ci sant euh, di di di ñaax rek di ñaax sama bopp di ñaax ñëpp bépp euh, conseil bu ñu fi joxee mu tàmbalee ci ñun ñu tàmbalee ko jëfee ñëpp jëfe ko ba pare di ñaan borom bi mu musul ñu ci feebar boobu nga xamante ni mooy accès mbokk auditeurs yi ma fàttali na yéen ngi déglu seen émission bi di SOS santé SOS santé nag am tey ñaari gan ginnaaw bi nga xamante ne waxtaan nañu waxtaan wu yaatu ak ci nga xamante ne moom moo di docteur Ndiaga Mactar Gueye mu dellu si ci lépp lu jëm ci wàllu jàngoro bi di AVC naka lay manifesté wu ak itamit nees lañu war a def ba mën ko moytandiku moo xam suñu comportement suñu hygiène de vie ak li nga xamante ne la ñuy di jëfandikoo ci beneen fànn bi nag ñu fas ki nga xamante ne moom moo di Ibrahima Diatta Ibrahima Diatta nekk chargé bu communication bu association sénégalaise de soutien aux patients et familles victimes d' accident vasculaire cérébral ñu gën ko xam ci lii di AVC tey jii Ibrahima ngeen euh, amat ab association ñu bëggoon rek nga dellu si ci lan mooy sabab ngeen taxawal association bi Euh, bon avant tout d'abord may ñëw ci question bi euh, dama leen di nuyu di nuyu seen euh, fidèles auditeurs et auditrices. Mm-hmm. di la nuyu yow mi di nu mu tuddaat nuyu service bi ma nekk mooy neurologie bu hôpital Fann et le chef de service muy professeur Ahmadou Gallo Gallo Diop. Mm-hmm. voilà man la Ibrahima Diatta cellule com. association bi en euh, lu ko tax a jóg euh, comme ni ñu ko waxee c'est euh, patients yi et accompagnants yi seen bopp ñoom ñoo sabab li ni mel. Mm-hmm. sabab li ni mel ndax lan gis nañu cherté bi bu scanner bi cherté nu mu tudd de l'hospitalisation cherté nu mu tudd maanaam dund bu métti bu ñu nekk di dund. Euh, sain euh, fu ñu leen hospitaliser parce que dañuy nekk dañuy faral di nekk ci ay conditions yu difficile mm-hmm. voilà ñu ñëw nag exposé ñu seen problème surtout nag la prise en charge mm-hmm. ñu ñëw nag exposé ñu seen problème ne ñu euh, expliquer ñu comme li li ma jogee wax nii voilà ñu ne nag metti na lool nit di dund lii te yaa ngi koy gis te ñu ñëpp xam nañu Sénégal ban position lay occupé parmi les pays les plus pauvres donc nit pour mu yeewu rek ak euh, quarante mille ndaxte scanner bi rek pour def ko rek pour ñu xam ban genre AVC la il va falloir d'abord nga def scanner boo defee scanner ñu mën a xam ndax AVC ischémique la wala AVC hémorragique la quarante mille francs mooy bu docteur euh, Ndiaga daa expliqué euh, sànq nii Sénégal kan mooy yeewu ak quarante mille francs ci sa poche waxuma amul mais c'est mm-hmm. boo ci jógee bu ñu boo jógee ci euh, comment dire ci scanner bi ba ñu xam ban la dañu lay hospitaliser te bu ñu la hospitaliser da ngay fay bu ñu la en même temps il va falloir nga defaat également ay rajo. di nga def ay analyse di nga def rajo baat di nga def rajo xool ainsi de suite ainsi de suite te yooyu yëpp xaalis la mhm. donc mu nekk lu lu métti mhm. ci patient yi mhm. voilà euh, ñu ne pourquoi pas aussi ne pas créer une association ci euh, ban année ngeen ko créer ñu ñu ngi koy créer 2019 euh, le 31 octobre 2019 voilà ñu ne pourquoi ne pas créer une association euh, qui va venir en fait en aide en aide ces patients et familles victimes d'AVC voilà yi vu que am na octobre rose am na mooy pour les cancers voilà am nañu également pour les diabétiques et tout ci lañ ne nag donc mën nañu créer ñun aussi benn association euh, buy ñëw pour dimbali nit ñi les patients et familles victimes d'AVC mhm. euh, ci lu bari. d'accord tey ñu bëggoon xam rek euh, koo xamante ne danga am AVC wala nga am euh, tey ñu bëggoon xam rek koo xamante ne dafa am AVC wala mu am mbokk boo xamante ne dafa am AVC naka la mën a def ba vraiment adhérer ci seen association bi de. waaw association bi en fait adhésion bi méttiwul. Mhm. parce que man je dis que c'est l'affaire de tous ça nous concerne nous tous euh, amul xaj ak seen amul politicien amul religieux képp ki nga xamante ne bëgg na bokk ci association bi il suffit juste que nga respecter les règles et les normes de l'association voilà léegi adhésion bi dafa am carte membre. norme ça moo c'est apolitique. boo ñëw pour adhérer ci suñu association lépp li nga xamante ne politique la da nga koy tegee côté lépp li nga xamante ne c'est domaine religieux da nga koy tegee côté ñu wax ci santé wax ci AVC wax nan la ñuy a def pour dimbali ñi ñi voilà léegi nag euh, dafa am ay carte membre yu ñuy jaay mm-hmm. carte bi 1000 francs la ba euh, voilà nit ki lu mu lu mu am 1000 francs la commencé ba nit ki lu mu am da gis parfois ñi nga xamante euh, carte bi mën nañ ko jëndee 5000 francs carte bi mën nañ ko jëndee dañ koy andil association bi. Mhm. léegi ku ci bëgg a adhérer en même temps am nañu benn numéro am nañ numéro de téléphone muy euh, le 78 728 95 38. ñu amaat benn bi nga xamante ne mooy 77 153 78 78. waaw muy numéro association bi donc képp ki nga xamante ne bëgg na adhérer ci association bi rek voilà euh, numéro yaa ngi nii mën na woote siège bi nag mi ngi nekk neurologie bu hôpital Fann. d'accord Euh, euh, ñu des ba léegi ci wàllu woowu wax ci li nga xamante ne moom moo di seen motu du ngeen fas yéene di organiser wu tey ngeen nekk association ku ci bëgg a bokk da am carte de membre mais ndax euh, du côté du ministère de la santé wala am ngeen ay bonne volonté yoo xamante ne ñoom dañu leen di farataal di di di di jàppale. waaw bon en fait euh, ñi ngi ñëw ndànk-ndànk. Mhm. ñi ngi ñëw ndànk-ndànk vu que association bi amagul noonu doole ñu bëri xamaguñ ko moo waral ñu euh, ñu soxla benn visibilité. Mhm. pour que ñu bëri mën na ñëw tendre ñu euh, leur perche parce que dafa am ñu bari ñi nga xamante ne dañuy bëgg a dimbali mais duñu xam par ou passer. xamuñu par où passer donc euh, bu ñu ko nekkee di véhiculer à que pour que ñëpp euh, jot si euh, dinañ ñi affaire bi vo aide bi dina gën a yomb. Mm-hmm. moo tax ñu suñu slogan mooy aidez-nous à aider. Mm-hmm. aidez-nous à aider donc ñu ngi woo ñëpp képp ki nga xamante ne mën nañu ñoo dimbali rek ñu ngi koy woo mu ñëw. Mm-hmm. bon ministère mi ngi def lu mu mën. mais ñu ngi koy ñaan mu gën a dolli. parce que voilà comme lu lu ñuy wax. li nga xamante ni ñëpp la concerné te soxla bëgguñu mu yem fii suñu luy ñaan mooy mu dem ba au niveau international ñëpp xam ko donc du lu ndaw. Mhm. ñu ngi koy woo mu dugal ci loxoom bu baax. Mhm. waaw. Mhm. Euh, ngeen euh, fas yéene amal euh, benn campagne bu ñu duppee eh, campagne avril AVC tey jii rek ñu bëggoon ñu bëggoon Ibrahima Diatta nga dellu ci ci seen campagne boobule lan la wundu waaw euh, campagne avril AVC activité yu ñu war a def ci mois d'AVC bi euh, ci mois d'avril bi la. Mm-hmm. voilà euh, bon d'ailleurs du commencer sax mois d'avril. waaw day commencer à partir du mois de mars. avril lañ ko programmé woon mais vu que avril bi dañuy dugg ci weeru koor bi ñu xaw xaw a am ay activités yu ñu décalé. Mhm. voilà euh, dañuy commencer à partir de le 26 mars. d'accord 26 mars dañuy amal benn caravane waaw caravane bi euh, fële lay commencer euh, Diamniadio. Mhm. voilà dem Sébikotane bu ñu jógee Sébikotane dem Dougar bu ñu jogee Dougar dem Yène jógee Yène dem Diamniadio. Mhm. voilà day nekk benn benn caravane de sensibilisation dañuy génn gox bu nekk point bu nekk ñu wàcc fa waxtaan ak nit ñi xamal leen lan mooy feebar bi mm-hmm. xamal leen nan lañuy mën a def pour euh, prévenir feebar bi voilà xamal leen lu bari pour euh, voilà ñu mën a comprendre lu bari ci feebar bi et puis euh, mën a jël seen matuwaay mm-hmm. ndax campagne bi dafay law ba dem ci région yi parce que su ma la déggee fi nga lim nii am na foo xamante ne fa ngeen tàmbalee ak fu ngeen di yem ndax ça concerne Euh, toutes les régions du Sénégal wala da ngeen ko fas yéene def ay ay pàcc pàcc. waaw bon ba tey damay ñëwaat foofu parce que voilà xam nga dama leen ne ñu ngi koy commencé si euh, mois de mars le 26 mars. voilà parce que dañuy dem ba avril. Mm-hmm. voilà léegi nag bu ñu paree ci le 26 mars dafay am benn formation bu ñuy amal euh, le 30 ak le. Euh, 31 mars. le 30 le 31 mars pour formation bi day nekk pour les médicaux ak bi nga xamante ne pour les paramédicaux léegi pour les médicaux day nekk euh, euh, la formation sur euh, la prise en charge Euh, de l'AVC mhm. des AVC euh, pour les paramédicaux day nekk le rôle en fait euh, des des paramédicaux sur le rôle sur la prise en charge des AVC mhm. voilà léegi bu ñu jógee ci loolu dañuy dem ci mois d'avril mhm. mois d'avril bi day commencer à partir le premier mars voilà léegi premier mars de 9h à 14h premier avril autant pour moi voilà day nekk de 9h à 14h dañuy am lu ñuy wax journée porte ouverte voilà journée porte ouverte le 7 mars dañuy am lu ñuy wax symposium 7 avril autant pour moi symposium muy euh, waxtaan bi nga xamante ni euh, des personnes scientifiques ñi nga xamante ni ils sont calés dans le domaine ñooy toog waxtaan si benn sujet lu jëm ci AVC mën a développer lu bari mhm. buñ ci jógee également dañuy am le 9 avril le 10 ak le 11 voilà benn caravane également de sensibilisation sur l'AVC et la sensibilisation day dem Madar ainsi que voilà day nekk li nga xamante ni ci AVC la ñuy wax ak euh, ci diabète. Mm-hmm. voilà loolu ñu ngi koy amal le 9 10 11 avril. Mm-hmm. boobu lieu bi fu ñu koy defee Saint-Louis la. Mm-hmm. mooy li nga daan wax donc du ñu yem fii uniquement Dakar ni ni ni Diamniadio. voilà donc dañuy dem Saint-Louis euh, le 26. de 9h aussi à dañu amal benn sensibilisation sur les facteurs de risque de boobu santé gan lañ koy lañ koy lañ koy def. Mm-hmm. voilà ñu ñëw euh, le 27 avril boobu de 8h à midi sensibilisation hygiéno-diététique boobu IPRES lañ koy defee. Mhm. voilà euh, professeur Camador moom mooy chargé euh, loolu moom moo koy moom moo koy gérer incha allah mhm. loolu yëpp cible yu ñu war a yu ñu war a yoo xamante ñoom la ñuy viser mooy la population. Mhm. population bi pour ñu mën a xam lu bari ci AVC pour que AVC mën a wàññee wàññeeku ndaxte ñu bari xamuñu ko en fait mooy comme lu docteur Ndiaga daan expliquer sànq da gis ki nga xamante ne bi demee na boor wala loxo bi liggéey mhm. sëriñ bi la wala dafa amee rab wala dafa génnoon ci guddi ainsi de suite ainsi de suite voilà euh, autorité yi autorité yi aussi ñu ngi leen ñoom tamit cible yu ñu soxla la pour ñu xam ni ñun également jóg nañu pour lii ñoom mhm. aussi ñu mën a ñëw euh, les personnes victimes d' AVC pour ñu xam ne ne dëgg la am nañu AVC mais AVC bi mën nañu ñëwaat bu fekkee ni euh, li nga xamante ne yaa ngi ko ko AVC bi mën na la dalal mën na dellu dellusiwaat donc yooyu yëpp aussi pour waxtaan ak ñoom la euh, ainsi que les personnes vivant avec le VIH voilà et les comorbidités ñun ñëpp les personnes de santé ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp en fait ñu bëgg a toucher pour que affaire bi gën a law affaire bi wàññeeku. d'accord euh, Ibrahima Diatta wax nga fi seen programme mais tey jii rek ndax euh, seen kuréel bi seen association bi am na moyen bu ko permettre mu def euh, le tour du Sénégal ndax programme bi euh, amaana dafa parce que dafa mel ni lu yaatu la. waaw programme bi lu yaatu la parce que en fait ñun suñu objectif dafa rëy suñu objectif dafa rëy mooy li may wax rek euh, moyens yi nag dañuy toquer mhm. les portes des autorités ainsi de suite ainsi de mais ba tey. des na moo tax ma ne la ñu leen di woo. Mm-hmm. waaw ñu leen di woo euh, ministère nag comme ni ñu ko waxee ñi ngi def lu am solo euh, vu que AVC comme ni ñu waxee hôpital Fann fii mooy le seul service référence bu AVC bu voilà nit ki bu feebaree même bu nekkoon fu sori la peut-être AVC fii fii lañ koy andi. Mm-hmm. mais ministère euh, organiser na benn formation docteur Ndiaga mii nii toog moom bokkoon na ci ñu defoon formation bi. Mm-hmm. voilà suñu président président docteur Manick Bakhoum moom également bokkoon na ci ñu def formation bi ak suñu secrétaire euh, suñu adjoint vice présidente autant pour moi moom aussi bokkoon na ci ñu def formation bi. Mm-hmm. voilà donc mu am ay ñi nga xamante ne dañ leen sànni si ay régions léegi Ziguinchor am na feneen ak feneen ak feneen euh, Dakar am na Saint-Louis Thiès léegi nag ñu bëggoon affaire bi gën a gën a gën a law mm-hmm. donc ministère bi ñu koy remercier ci loolu mais ñu koy ñaan également mu gën a andi andi euh, andi apport am. Mhm. mu gën a andi apport am euh, les autorités également ñu leen di woo pour que ñu mën a subvention subventionner feebar bi. ñu mën a subventionner feebar bi nu mu tudd xaalis bi la prise en charge et tout c'est c'est exponentiel dafa doy waar voilà mi ngi noonu prise en charge bi dafa dafa cher trop dafa cher trop dafa bon euh, bu ñu daan dégg professeur Camador mi ngi wax aux environs mën na yegg peut-être cinq cent mille genre boo ñëwee parce que boo ñëwee takk ñu laaj la scanner nga def sa scanner cinq benn jour par rapport ak premier soin yi lekk yi sans compter li ngay lekk li ngay naan yooyu yëpp aussi euh, y compris yooyu yëpp li ngay lekk li ngay naan ainsi de suite si c'est difficile mm-hmm. surtout thrombolyse bu ñu nekk di wax ni mm-hmm. euh, docteur Ndiaga mu ngi ko daan expliquer mooy bu fekkee peut-être da nga am AVC euh, ischémique bi nga xamante ne day faat donc dans les quatre heures et demie il va falloir que nga yegg si gaaw hôpital pour ñu mën la injecter thrombolyse boobu noonu mu mën ko tas boobu c'est cher. Mm million peut-être un million et quelque donc xam nga sénégalais lambda bi mënta am c'est difficile wax ma du ko am ñu koy am du ñu bari. Mm-hmm. donc bëgg nañu ñu dugal ci seen loxo tamit euh, pour que mu mën a accessible ci population bi yëpp. Mm-hmm. Euh, ngeen taxawal euh, seen association bi ci atum 2019 tey jii rek boo ñu doon defal benn petit bilan même si association bi yàggul 2019 2022 yàggul noonu mais tey boo ñu doon defal benn euh, bilan muy évaluation lan nga ñu ci mën a wax euh, lan ngeen jot a def lan moo des entre autres. waaw euh, ñu ngi koy taxawal depuis 2019 comme ni nga ko waxee le 31 octobre ñu commencé ci def nag ay activité mm-hmm. voilà activité yi bon jot nañu def ay dons. don de sang. ay don de sang jot nañu def ay don de sang organiser que gars yi voilà également jot nañu organiser des activités de sensibilisation jot nañu def ay caravanes. Mm. dem nañu yëmbal def euh, le tour je peux dire de yëmbal waaw di sensibiliser comme lu ñu war a ñoo def ni euh, le 26 mm. mars fële à Diamniadio defoon nañ ko yëmbal te on euh, bëgguñu yem fii dañoo bëgg affaire bi gën a law def nañu ay également don de joxe nañu ay ceeb parce que di nga gis joxe nañ ceeb joxe nañ diwlin di nga gis benn père de famille mu tombé malade alors que moom moo daan gérer famille bi yëpp mhm. donc euh, kooku ce qui veut dire que liggéeyam doxatul nu muy yoree njabootam day xaw a compliqué donc association bi dañuy dajale peut-être ay ceeb diwlin yóbbul ko wala benn somme ñu yóbbul ko voilà euh, loolu ci volet social bi la léegi bu ma ñëwee ci volet médical bi da gis nit ci dina feebar fii bu feebaree euh, ñu ba mu génn. parfois day am day war a ñëw parfois ay consultation mais mën na métti ci nit ki torop day métti ci moom peut-être moyen bi du fa nekk ak déplacement nit ki léegi ñun association bi on euh, dañuy yënni day am benn médecin buy dem ba kër kooku voilà consulter ko euh, bu fekkee am na ay garab yu mu war a jënd association bi bu ko yoree mu may ko ko bu fekkee yeneen ak yeneen association bi association bi taxaw ci mhm. taxaw ci bu baax mhm. ñoo ngi def ay jéego yu am solo également effectivement euh, si wàllum sensibilisation. comme ni ma ci wàllum sensibilisation bi naka ngeen di procéder parce que xam naa ne sensibilisation du loo xamante ne yomb na rawatina ci yenn jàngoro yoo boo jàngoro yoo xamante ne comme docteur ni mu ko waxee am na ñu xam ne AVC la ma mais de l'autre côté am na ñoo xamante ne dañuy jàpp ne peut-être rab la wala peut-être nit moo la ko def ndax sensibilisation bi durant bi ngeen ko tàmbalee def ba léegi nekk na lu yomb ci yéen. waaw bon yomb na yombul. Mm-hmm. waaw euh, comme ni nga ko waxee association bi xam nga dañ la ne association sénégalaise de soutien aux patients et familles victimes d' AVC. Mm-hmm. léegi nag soutien bi pour dimbali leen euh, c' est de différentes façons c' est de différentes formes voilà euh, social bi dañ ci yëngu médical bi également dañ ciy yëngu en même temps day amaale ay formation di amale formation euh, ñu former nit ñi euh, pour que ku ci nekk nga nekk en fait sa ambassadeur fi nga nekk mm-hmm. boo gisee lii ak lii ak lii nga xam ne lii AVC la boo gisee nit ki signe bi wala nga gis signe bi xamal ne donc lii AVC la lii ak lii ak lii mooy facteur de risque bi mooy lu euh, docteur Ndiaga daan expliquer sànq mm-hmm. mooy facteur de risque bi nii ngay mën a def pour nga pour nga prévenir pour nga prévenir que moo waral nag sensibilisation moom laa dañuy wàcc ci mbedd mi mm-hmm. suñuy t-shirt yor suñu micro di wax ak dem ci marché yi di wax ak population bi di wax ak population bi ñu wàññi comme suukar su bari si mm-hmm. xorom su bari si diwlin bi bañ a euh, bañ a yëngal seen yaram la sédentarité waaw mooy lu kii daan expliquer fii voilà donc euh, yombul parce que bon yow mu koy def peut-être di si jëlee coono mais par amour lañ koy defee ndaxte même bu fekkee da koy def pour benn nit déglu ko mu jàng ci donc fierté la satisfaction la. Mm-hmm. comme ni koy waxee c'est une association en fait à but non lucratif. Mm-hmm. mais heureusement euh, ñu ngi si am ay retours yu positif. Mm-hmm. waaw euh, comme dañoo am benn groupe WhatsApp moom laa daan joxe numéro bi sànq mooy 77 728 95 38 gars dañ ciy dugg ay médecins en même temps dañuy ñëw di dañ gars dañuy poser ay questions ci biir association bi ci lu ci leen jaaxal ci biir groupe bi ci lu leen jaaxal médecins yi ñëw apporter si seen seen euh, seen réponse mm-hmm. te ñu bëri ñu bëri euh, jàng nañ ci lu bari macha allah jàng nañ ci lu bari. Mm-hmm. Euh, tey jii lan nga ñu mën a wax ci seen perspective yi. waaw perspective yi mooy comme li ma daan expliquer sànq. parce que bëgguñu mu yem fii bëgg nañu mu law tout le monde ñëpp ñëpp xam lan mooy lan mooy euh, AVC lan mooy nan la ñuy def ba moytandi ko voilà léegi ci noonu du yomb parce que comme li ñuy wax mbooloo mooy doolee dëgg la ñi caa ngi ñëw mais autorité yi ak gouvernement bi gën leen la soxla dañ leen soxla lu ci lu bari ci loolu. Mm-hmm. waaw nañ ci dugal seen loxo mooy man damay faral di wax bon euh, autorité am na ñi nga xamante ne les personnes de bonne volonté xam nañu. exactement euh, bëgg nañu aider mais ils ne savent pas fan la ñuy jaar par ou passer ak kan lañ koy jox mm-hmm. ndaxte da gis ñu bari dañuy créer seen association mais. Euh, c'est pour se servir. Mm-hmm. dañuy créer association bi pour mën a am lu ñuy gagner moo tax gars yi yaa a y' a y' de démagogues si y' a tellement d'imposteurs moo waral gars yi wóolatuñu kenn donc bu ñu gisee genre association yii ni taxaw donc ñoom aussi dañuy am dañuy sawar pour ñëw dimbali moo tax ñu ngi leen di woo ñoom ñëpp à que ñu ñëw euh, également bëgg nañu. feebar bi instant bi nii feebar bi moo nekk deuxième position deuxième cause de mortalité. Mmh. deuxième cause de mortalité première cause de handicap physique. Mmh. donc bëgg nañu mu wàññeeku mu wàññeeku bu baax bëgg nañu. Euh, nu mu tudd feebar bi wàññeeku bëgg nañu la prise en charge même bu fekkee mënuñu ko am gratuitement mu wàññeeku bëgg nañu euh, nu mu tudd bu ñu demee ba ay moment ay ay ay euh, nu mu tudd ay ati at ñu dégg peut-être AVC mi ngi ci beneen position mais pas comme position bu bu bu mu nekk bu mu nekk nii. Mm-hmm. waaw yooyu bokk na également ci suñuy perspective voilà feebar bi dem ba wàññeeku disparaître parce que euh, France suñu yeneen yeneen dëkk yi da ngay gis nit ki mën na def AVC tey ñu defal ko lu ñu koy defal après mu jóg doxi soxlaam. Mm-hmm. bëgg nañu ba yegg niveau boobu noonu mm-hmm. incha allah. Euh, sant ko gërëm ko Ibrahima Diatta mu mel ni waxtaan wi am na solo mais li ñu cëraloon jëloon ci waxtu wi yegg nañ ca. waaw xanaa di la remercier yow Fatou Baba fan mm-hmm. ndaxte li ngeen di def nii également dafa am solo day permettre également ñu bëri ñu xam euh, association bi li mooy jàppal ma jàpp ku ci nekk ci li nga nekk si nga mën a euh, jàppalee nit ki yéen ci média bi ngeen nekk donc ñoo ngi woo également média yi aussi ñu ñëw gën ko propager. Mm-hmm. voilà euh, di remercier association bi tous les membres de l' association ndax association bi moo tax tey ma toog fii di wax lu jëm ci association bi di remercier euh, euh, vos fidèles. Euh, nu mu tudd auditeurs et auditrices. Mm-hmm. voilà euh, di remercier le euh, comment dire professeur Amadou Gallo Diop waaw ndax moom aussi bu mu jàppee ba léegi bàyyiwul. Mm-hmm. mu ngi ñu soutenir fekk fu ñu mënti nekk luñ ko mënti wax mu ngi voilà mu ngi mu ngi taxaw donc loolu rek doole la voilà di remercier tout le monde tout le monde te di woo également ñëpp. ñëpp ñëpp ñu ñoo jàpp ci combat bi ndaxte c'est l'affaire de tous euh, mais profité waale en même temps di saluer euh, remercier suñuy partenaire mm-hmm. la maison de l'eau en font partie en fait partie ndaxte bu ñu commencé ba léegi ñoom aussi chaque activité dañuy ñëw taxaw. Mm-hmm. waaw euh, nu mu tudd Mako Press. Mm-hmm. ay yu ñuy def wala yu ñuy yu ñuy sol ak blouson yu ñuy sol waa Mako Press groupe ñoom ñoo ci taxaw bu ñu commencé ba léegi ñoom aussi ñu ngi ci waa Balades compagnie Balades Brothers Company euh, composé de bras des artistes d'ailleurs def nañu benn hymne euh, buy wax ci feebar bi donc ñoom ñëpp ñu ngi ci ñu ngi leen di remercier ñun ñëpp ñoom ñoom ñëpp mais man également j'ai fait un son portant sur l'AVC donc euh, ça mérite d'écouter et d'être écouté par presque tout le monde ndaxte dañ ciy jàng lu bari bari bari di leen remercier waat encore une euh, euh, sant leen bu baax a baax waaye tamit gërëm leen bu baax a baax ci seen disponibilité moom docteur Ndiaga Mactar gay nekk neurologue fii ci hôpital bu fan waaye tamit euh, fegoo woon naag waxtaan wi ki nga xamante ne moom moo di Ibrahima Diatta nekk chargé de communication de l'association sénégalaise de soutien aux patients et victimes euh, aux patients et familles victimes euh, d'accident vasculaire cérébral ñu gën ko xam ci AVC tey nag SOS euh, santé dafa amoon ñaari gan yu am solo lool fàttali ne yéen a ngi doon déglu seen émission bii di SOS santé Fatou Baba Fall moo nekkoon ci micro bi Bachir Cissé nekk ci xarale bi jërë ngeen ci déglu bi beneen vendredi beneen émission ak yeneen invité